mbokk yi asalaamaaleykum mbokk internet yi ñi seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ku ci nekk di la sant di leen jox seen wàccuwaay kii ngeen di gis ki écran bi nag muy Zakri Nigéria di maarabu Nigéria nekk fii ci Kaolack Medina Baye di mu ngi ko donnoo ci ay maamam fële ca Nigéria waaye rawatina aussi bi mu 2002 2022 ba léegi nga xamante ni bi mu yegsee fii ci Kaolack Ndangaan fii ci dëkk bi nga xamante ni mooy médina nekk taw nekk taalibe Maolana Cheikh Ibrahim mu ngi fi nekk di yëngatu ci wàllu ñaan muy koo xamante ni ku yàlla may la mu boole ñaari faj faj yi nga xamante ne da ko jëlee ci ay cosaanam foofu ca Nigéria muy fàllum faj rapide vite fait comme ni mu koy waxee waaye faj yi nga xam ne aussi jëlee na ko fii ci Medina Baye boole ko boobu ba léegi 2022 mu ngi fi installé di fii faj jaamu yàlla yi ku ci nekk tawat boo mën a am boo ñëwee yàlla defal ko tawféex kooku nag mooy Jacques Nigéria ñu fas yéene ko bàyyi mu waxtaan ak internet yi tey fan la jëlee faj fan la doonoo faj. ak lan moo ko booleeg Mawlana a Ibrahima Niass ak bi mu installé Kaolack fii ci Medina bàyyi di yëngut ci wàllu faj donc ñenn ñi nga xamante ne ni tey euh, ñu ngi jóge fu ne ñu ngi koy woo fu nekk un peu partout dans le monde garabam mu ngi bàyyeekoo fii Kaolack di dem fu nekk di yëngut ci wàllu faj di jàmbaar ñu ñu am lu ñu ci xam am lu ñu ci teg suñu bët muy ndaanaan boo xamante ne nii ci li ko yàlla sédd muy xam-xam yàlla dimbale na ko ci képp koo xamante ne ni yegsi nga ci moom boo ñëwee ah, sa ajo dana faju kooku mooy Jacques Nigéria mbokkee xaritu internet yi ñu ngi leen di bàyyi bu ko defee ngeen waxtaan ak Jacques Nigéria ci kanam tuuti nag su nuyoo ba pare tàggoo numéro yi téléphone yi nga xamante ne mooy whatsapp bi danañ ko bàyyi ci écran bi ngeen mën a jokkoo ak moom fu waay mën a nekk waxtaan ak moom foo waay mën a nekk garabam mën na dem partout dans le monde yàlla dimbale na ko ci ay ñaan yàlla dimbale na ko ci faj yàlla dimbale na ko ci gis ci wax la lépp loo xamante ne moo nekk sa yaram dindi la lépp loo xam ne moo nekk sa yaram waaye bépp jafe-jafe boo xam ne boo waxtaan ak moom ci kàttanu ay maamam nga xam ne dafa donn fa ci ay maamam waaye nekk ta taalibi Mawlana Cheikh Ibrahima rawatina nekk fii ci Kaolack Medina Baye dañu leen koy bàyyee ñu tàggatoo sëriñ bi maa ngi lay wax asalaamaaleykum di la bàyyi nga waxtaan ak àddina di la bàyyi nga waxtaan ak sénégalais yi di la bàyyi nga waxtaan ak internautes yi aouzu billahi min asheytaan irrajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillahi alladi fatihi lxaatimi yaa himmati cheikhi ihdurina bi hasil mahadari waltatifi bi nazaratin tahtina bi zafari wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim alhamdulilah alhamdulilah aydan macha allah waa Sénégal maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp adduna bi yëpp sama mbokk yi nekk yi sama mbokki taalibe yi sama mbokki muqaddim yi yëpp may nu ñëpp muy nekkee ci gambu weer bi gars yi di forcément il faut ma jenn parce que ba mille vingt de ba léegi ni mosuma jenn tourne benn vidéo alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax ñaan yàlla moom kan ku nekk dafa bëgg hmm, kan ku dafa bëgg dugg ñërëm vidéo bi émission bi na dégg émission bi ba ma jeex kenn ku ne dafa bëggu am am moom na dégg émission bi na jeex kenn ku dafa bëggu am lépp la bëggu am ci ci adduna bi na dégg émission bi ba ma jeex may xam nga ñaani yàlla du caaxaan ñaani yàlla dafa bari ay façon alhamdulilah man yàlla may na nañu loolu ci xam-xam ci ñaani yàlla lépp lënd nga bugg am na fii xam-xam bu sel xam-xam bu ñuul lépp lënd nga bugg am na fii waaw xam nga adduna bi il faut da ngaa góor-góor sa bopp parce que adduna bi moo toll noonu doomu aadama yaa ngi gis da ne nekk ci yenn yenn kenn ku ma muy nekk ci toppatoo sa gannaaw parce que ñaaneel dafa bëri ay façon encore dama ñëw taxawal ci sama ñaari tànk ci ñaar sama ñaar loxo ci sama ci sama sajjaada ci sama kurus dafa amee benn feebar naka ci adduniya bi moo nekk ñàkk moo nekk faqiir ci kattam yàlla kan ku ne dafa jëfalante amoon ñàkk ñàkk ñàkk amoon dafa jeex ñàkk moom dafa jeex parce que ñàkk baaxul yàlla mosu ñàkk faqiir baaxul encore da ngaa gis nit xaalis day ñëw ci yow waa xaalis bi fii ñëw du amee ñëri yaa ni du amee barki day gaawul jeex ci solox doo xam lan la ngaa defee ko loolu affaire rab la nit da ngaa gis keneen day jox cadeau jour nangam maa lay envoyé xaalis ak maa lay dafay nangam nangam juru boobu fay jot sa yaakaar bu bëree day tas ba kañ yaakaar c'est doomu aadama sa yaakaar day mënoo tas amma am na yeneen tas yaakaar loolu baaxul loolu baaxul ci doomu aadama doomu aadama il faut da ngaa dafay sa bopp xaalis dafa juuti am yow kuma dafa juuti da ngaa defar sa bopp. kan ku dafa nelaw moom bëggu boppam waa kan ku ne dafa bëggu boppam na jëfalante am moom ñaani yàlla adduniya bi lépp landa nga lépp landa ngaa lijjanti ak ko am ñaani yàlla rek day taa da am ko law ittaqatta ala hajar la nafaanaka lépp landa ngaa gëm di ci yow waa dama bëggu indi benn kàddu tuuti rek parce que dafa amee yeneen di jël sama numéro de ma sëriñ mi dama bëgg defal ma xaalis déedéet man dafa ma xaalis man liggéey ma loolu da nga indi sa xaalis ma defal xaalis déedéet il faut que maay defal xaalis dama defe sama bopp xaalis dama ñaan sama bokki sama client kan ku ne il faut que day xam ci loolu lay na bul jël sama numéro olma man ci ñaan yàlla dox borom xaalis bu ne ci adduna bi aw borom milliardaire bu ne ngaa gis ci adduna bi moom mosoo jëlee xaalis moon dem ci sëriñ wax ko damaa bëgg a defal ma dafa jëlee xaalis moom ay milliards dem ci ay sëriñ ni ñaanal ko parce que lépp lan nga gis yow nii billahi tallahi fii ñaan yow da ngaa nekk président Mauritanie président euh, Sénégal xam nga yow doo yaakaar da nga mënoo nekk président doo yow doo yaakaar ci loolu waaw fii am ñaan yàlla dégg de kan ku di am ñaan yàlla dem na dem na bu pare nit mu de am ñaan yàlla dem naa fakkee lijjanti ñaan yàlla rek am sirin day ñaan yàlla xaqiqatan ñaan yàlla moom nga ñaan yàlla moom dafa bëri ay façon waaye yow da bu jugee ñëw ci sirin ñaanal yow bu man dama jox xaalis tuuti déedéet xaalis lan da ngaa jox li ñaanal yow iza uridu shay'an if'alu shay'an il faut que da ngaa bugg dara da ngaa dafa dara nit bu nekk dafa bugg jaay moom na dox bu baax ci kattam yàlla affaire jaay moom yalla may na ci xam-xam loolu client rek da ngaa bëgg na ñëw ci yow ci kattam yàlla loolu fekkee da ngaa jëfalante moom da nga amee client xam nga comment dafa amee benn affaire moo nekk fii ci ay doomi aadama cat cat dafa son ñi ñëpp cat mu cet cat baaxul nit bu ne da ngaa gis sa affaire du dem bu baax waa dama xala sa bopp man kuma nit ba jëfalante amoon il faut mu xoolal sa yaram bu pari yaani listixaara parce que listixaara mooy ñaan yàlla buntu ñaan yàlla listixaara moo nekk buntu ñaan yàlla man fii nii Sénégal du mu wax ak kenn du mu du mu xëcc ak kenn affaire sëriñ déedéet man dama xam sam boobu dama xam lan laa liggéey balil insaanu alaa nafsihi basiira dama xam lan laa liggéey du léegi laa commencé dugg ñaan man ba maay xale maay ñaan loolu ci sama maam laa jëlee ko. listixaara bi man listixaara ruhaniya laa liggéey listixaara ruhaniya listixaara ruhaniya moo gën a gaaw ak listixaar yëpp nekk ci adduna bi lépp moo nekk ci seeram bi day wax lépp la moo nekk ci problème bi day wax lépp léegi il faut que da ngaa may sarax li war a yow sarax yi di nga koy waroo ko dama jëne ko gàllankoor bu ne nekk sa yaram bi billahi tallahi il faut que day def juróom at gàllankoor na sa yaram bi lii nii càngat bii nii da gis fal yi fii fii mosol la ko jox la ko butel tuuti rek dem san ko guddi gàllankooru bu ne nekk seram bi day dem lépp lan danga ngaa tëju tëju tëju tëju tëju tëju waa am na yeneen tëju na bu pare du mënu amee xaalis ñëw ci sireen jalal bi déggal émission bi bu baax may naa la ko guddi une heure aw deux heures da ngaa jàpp da julli ñaar raka beneen raka bi fatiha alam nashara benn rakka bi fatiha iza jaa nasrullahi wal fathu yaa ngi pare julli ci yenante bi yaa ngi pare indi asta da nga indi astafurlah benn yoon astafurlah téeméer après indi eh, eh, salatu ala nabi salatu bu ne da indi baxana julli ci yenante bi rek yaa ngi pare après da ngaa jënge qul wallahu ahad 111 inna atinaka alkawsar 111 góor góor defu ko fii ba semaine incha allah yàlla de ubbi la aw dafa amee ñaari julli di wax salaatu risk salaatu risqu moo nekk da ngaa julli ñaar raka encore da indi qul wallahu ahad danga indi fatiha bu pare indi ikhlaas yi qul wallahu ahad allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu ba mu jeex danga indi ñetti yoon qul wallahu bi après indi inna atinaaka ñetti yoon après jóg indi fatiha indi qul a'udhu bi naas ñetti yoon inni xulaasu bi rabbil ñett yoon lii nii lii moo nekk salaatu risqi lan da ngaa ñàq il faut que amul xaalis da ngaa dem ñaanal yow sa affaire na dab jàpp ñaar lakaay de defoo ko aw nit bu nekk lan da ngaa ñàq-ñàq yow doo julli ceenante bi <laughs> yaa yaa ngi dégg julli ceenante bi moo gën affaire julli ceenante bi rek xataa yowmal yaani leylal jumaati guddi al lëndën ngaa fooy sa bopp dangaa waroo am sa jot adduna bi lépp lëndën ngaa gis yàlla dafa xasasa ko pour yenent yi nit bu ne di amee xubb yenent yi noppal na waaw ñi ñëpp ni góor góor góor góor da am xubb yenent bi da julli ci bi parce que julli ci yenent yi day dind ñàkk day dind gàllankoor day dind lépp il faut ma adduna bi yëpp muy sànni korti il faut que yaa ngi da julli ci bi billahi tallahi kenn du du kii yow du am nasara ci ci yow salaat bu ne da ngaa def allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim allahuma salli ala sayyidina ahmad fatihi lima awgaliqa allahuma salli ala sayyidina muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbi ajmain allahuma salli ala sayyidina muhammad alfatihi salaat alfatihi salaat ibrahim salaat naari yooyu yëpp baax naa benn bu ne da ngaa mënu def guddi aljuma lan de ñàq-ñàq sama mbokki taalibi yi ak ko sama mbokki julli yi lan de ñàq-ñàq guddi aljuma mënu nga jug toog parce que guddi julli ci yonent gi yonent bi guddi aljuma moo gën a bu day gën a baax parce que guddi aljuma bi journée bu ne da ngaa jàpp toog ci kaw sa sajaada yaa ngi julli ci bi yonent muy toog malaayka muy toog ci ci nopp yonent da ngaa julli ci yonent xam nga am nay yeneen jour da nga julli ci nanti comme ay yomu larba yi yomu yooyu ay malayka raxam mu ñëw di dégg yaa julli ci nanti bi dem du E doomi nangam doomi nangam doomi nangam ji julli na ci yenent bi risale bi direct de dem ci yenent waa leelal jumaa yenent ci ci boppam mooy toog foofu yaay toog yenent ci boppam muy dégg yaay julli ci moom waa kan ku ne day day julli ci yenent bi yàlla ma julli ci yow lan day lan day nekkee ari instant bi ni jafe-jafe yi dafa bëri ñàkk yi dafa bëri ñàkk a topp julli yenent yi fokkee da nga julli ci yenent bi yenn yeneen jafe-jafe doo ko mën a gisul da ngaa gis yow da ngaa ñàkk ama sa xol bi da ngaa suru lu woon suru da ngaa kontaan da ngaa kontaan bu baax alhamdulilah ñu muy sant yàlla bu baax ñu ay taalibaay maay bàyyi ñaari badi ci taalibaay yi góor-góor ci salaatul faati yi salaatul faati bi baax na lool lool salaatul bi baax na lool lool kan ku ne góorgóor góorgóor lan day ñàkk-ñàkk journée bu ne yaay dóor douze mille salaatul faati garab ñi adduna bi xam na adduna bi yëpp xam na ñim macha allah yàlla may na xam-xam ci garab il faut que bii tuuram moo nekk defar kër gi lii nii kër gi lay def kan ku kan ku ne day gis guddi du mënu jox jabaroon lan lay bëgg xaq ci kattam yéen lay fukkee da ngaa jëfalante moom bii garab la dafa kar gi la tudd dafa kar gi kar bii dana nekk torop waaw xam nga lépp lenn ngaa gis adduna bi dafa ma xàq bul yaakaar man maay joxe sam jabar xaalis maay def sam jabar nanga ma nanga déedéet lépp yaram ni ci bopp dafa am xàq lépp lépp lépp lépp lépp war naa da ngaa lépp na nekk ci xàq encore kan ku dafa waroo moytu jaar ci doq bu tilim doq yu tuur ci bedd bi aw eh, yoonu bu xadd yoonu bu bu gàtt jigéen lan da nga ñàkk-ñàkk yaa ngi togg téeméer at aw juróom at amul jëkkër ci kattamin layil fokkee da ngaa jëfalante moom pare nga une semaine dafa bëri da ngaa gësit yow ko salaamaaleykum incha allah nit lépp lan da ngaa gësit da nga amee gàllankoor jawharati kamal pare na lépp jawharatul kamal din nga koy defar la ko ma maa ramayta iz ramayta walakinna Allaahu rama loolu jaxasa la ci kattan mi loolu yooyu yëpp incha allah fii fokkee da nga jëfalante incha allah pare na sa gàllankoor pare na incha allah nit lépp lan da ngaa da ay sëriñ xam nga adduna bi moo toll noonu bul tase sa bopp yaakaar bul kii e, yaani e, alhamdulillah maa ngi ko sama bokki jullit yëpp yawmul jumaa biyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi bul xaqin jëlee sa kurus indi qul wallahu ahad téeméeri yoon salaatul fatihi téeméeri yoon waa ci saasi boobu ba yaa jóg il faut que xaaja da am yàlla fa na ko lépp lan da nga ñaan foofu yàlla fa jëral na ko déggal bu baax mission bi bi yokk asalaamaaleykum aljuma yowmul juma fii julli aljuma bu pare rek jëlee sa kurus qul wallahu téeméer yoon salaatul fatihi téeméer yoon après ñaan da ngaa ñaanee si si lépp lan la ngaa bëgg ñaan hmm? rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l-akhirati hasanatan wa qina azab an-nari salatun turtubu biha lana fi sa'iri takhallabatuna wa mawsana wa tasfal ajsamina wa qulubina wa khawatirina wa halina wa mulina wa ahlina wa zuriyatina wa hubbina wa ashabina wa ansarina wa muridina ila akhir lépp lan da nga bëgg ñaan ñaan yàlla macha allah kan ku ne kuma dafa bëgg jëfalante am ni jëlee li moroom yi jëfalante am taalibe Baay di bëgg am yenn yenn affaire yi jël si la jëlee jëfalante am ci kattam yàlla loolu yëpp di nga koy dimbalante bi jaay ni biir sallallahu alayhi wa sallam bu jaay na sahamtu jaay ni xutub na xutum yi asalaamaaleykum wa